Adama arbitre bi ngi waaj a sifflé arbitre bi sifflé na ndaysaan Papa Cité ak Tapha Mbeur ndaysaan Franc Mbeur ndaysaan ak Papa Cité Franc Mbeur moo la woon ginnaaw Papa Cité moo la féetee càmmoñ moo takk takkaay yu bari nduroog Cité rek ba ci sax Cité lay indi Papa Cité Franc Mbeur Papa mu ngi nekk écurie booy Sey Franc mu ngi nekk écurie Grand Médine ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu deme nañ wet Franc dagg na lewaatoo bi ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ci làmb Papa Cité Franc Mbeur Papa Cité Franc ñoom ñaar jàppante nañ Rolange sol na ko sol na mu ngi koy takk takk bi baax na Papa Cité Franc takk na ko ma ngay demee wet Papa Cité bañ na Franc Mbeur fi mu jàpp baax na Papa Cité day bañ wala déet Franc Mbeur fi mu jàpp baax na Papa maytul tegal siège mu ngi yoot Franc maytul mbat bi mu ngi koy tegal siège daan na

dama jox samay morom. ñan ñooy sa morom. Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor ku daan Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor ku daan. ndeysaan.